bi ñuy yegg si au pouvoir bi ñu see li ñu wax revirement boobu am ci non respect de leur engagement boobu mooy appel candidature bi mu amatulee rek pour man amatul lenn lu ñu leen war a mën a qualifié til erreur parce que ils ont choisi maintenant de de de faire une gouvernance politique parce que au début sur les assises nationales man chaque fois loolu laa doon wax assises nationales yi Diomaye était militant Sonko était militant dans leur programme dans la dans leur livre solution ba ci débat yi ñu mën yëpp dañu waxoon ni posture stratégique yëpp dañu koy def objet d'appel candidature prôner les compétences loolu la ñu waxoon mais bi ñu yegsee politiquement après leur réunion et leur rencontre avec Diomaye président après aussi tamit ñu toog ak waa Pastef xam nañu ne ni non option boobu baaxul léegi nag option boobu ñu jël ni baaxul ci seen constance la ñu nekk ci seen logique la ñu nekk donc secteur yëpp nag muy santé muy éducation yëpp seeni élément lañ fay teg parce que dañuy politique pour asseoir à leur base hmm. mais ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biti jàppoon ni ni lii la ñu waxoon ci assises yi defuñu ko keneen defuñu ko ñoom bi ñu yegsee waxuñu lool si laa ne leen ñu ngi ci wax waxet hmm. wàcc nañu yoon boobu mais secteur santé euh, lii euh, Salif Joseph wax mook éducation man très depuis sax avant élection yi j'avais dit que bu ñuy dem gouvernement balaa ñuy dem élection nañu dindi éducation dindi santé dindi justice ñu teg fa ay généraux man man dama yàgg proposer loolu bi ñu ñëwee dans le gouvernement j'avais dit que ni au moins ñetti secteurs yi bu doon sama sago ñu teg fa benn généraux benn général boo xam ne ni dina dinañ xam ne ñoom dañuy servir yàgg nañu servir mais secteur santé nag dafa am loo xam ni ñun mënuñu leen ko xeexal xam nga justice xeex nañu ba yenn post yu yi pour nga dem fa dafay am fooy jaar du n'importe qui la ñuy nommé président conseil euh, suprême cour suprême mhm. mais loolu nag santé la seen cuisine interne ñoom ñoo ko war a xeex mhm. parce que boo demee université pour nga nekk recteur léegi maintenant c'est appel à candidature boo xam ne ni instauré nañ ko fa mhm. mais y a l'ordre de de médecine l'ordre bi nga xam ne am na mais ordre bi aussi dañ ko war a xoolaat ci seen biir parce que ordre dafay dafa war a rencontrer am na am na daje bu mu war a am ak de la république l'ordre aussi dafay jox conseil le président de la république sur les orientations de santé mhm. boobu foofu nag rek lay joxe conseil le président ak premier ministre donc lu mel ni santé bi nga ñëwee au pouvoir vous avez choisi de faire la continuité avec le secrétaire général du gouvernement Samba Ardoba mm -hmm. donc pour man arrivé sur place parce que y a y a yoo xam ne ba léegi ñi fa nekk wàccuñu continuité la donc pour man santé mhm. on aurait laisser Eva euh, mu continuer en attendant ñoom ñu rencontrer le secteur comme ni ñu rencontrer le patronat comme ni ñu rencontrer les ñeneen ci diggante bi mën nañ ci rencontrer ordre bi waxtaan ak ordre bi loolu moo doon sama gis-gis ak ci lu ma xalaatoon mais sur le plan politique ñoom bi ñu yegsee bi ñuy xeex ñoom santé ñoo ëppoon ñu doon politique ñu bokk ci kuréel googu santé mm-hmm. la santé était politisée jusqu'à la tête secteur yépp syndicat yépp ba ci nomination bi ñu bëggoon defal euh, Toussaint Manga au niveau de centre de santé fële euh, Ngor boobu dafa il a fallu que nit ñi jóg taxaw parce que période boobu bu ñu seetaanoon dina dem occuper espace boobu euh, au niveau de centre de santé de Ngor boo demee ci secteur bu nekk ñoom ñoo ko yoroon mais secteur bii ñuy wax sida xam nga am na ku ñuy wax professeur Moussa Seydi mm-hmm. yor maladie infectieuse joué ci rôle ba pare foofu def de d'excellents résultat man dem naa fa si ñoom Karim Diop visité naa leen mais boo xoolee secteur boobu dafa dem ba nga xam ne ni bokk na ci secteur de référence yi donc lu mel noonu programme yooyu bari na mais programme yi dafa bari xaalis am ay milliards PNLP programme paludisme programme yeneen yi mais programme yooyu en général ñi ñu fa teg majorité bi dañuy politique li kiy wax il faut que ñu dem vers ça la dépolitisation de la santé parce que tey jii nii pouvoir bi yegg si tey ña nekkoon ci programme yi te daan accompagner bu ñëwee daf leen di satisfaire donc histoire jox nañu que ni la politisation de la santé moo indi problème hôpital yi parce que hôpital yi recrutement yi fi am yëpp personnel sanitaire bi nga gis yépp ñu naan la amuñu fu ñu mënuñu àttanuñu ko comité de gestion santé politique moo ko indi. pour man ci études yi ñu jot. Mhm. surtout que ñoom ñu nekkoon ci terrain bi pour man yi ñu leen defal ci experts yi waroon na nekk ci seen bagage. Mhm. mais nomination bi puisque débat bi mu ngi soulevé woo ci syndicat wu santé. moi mhm. là j'attends l'ordre des médecins. j'attends aussi leneen parce que amagul loi amagul texte bu leen ko bañ a defloo. parce que tamit euh, réglé wuñ ko mais xeex bi. ñoom waa santé ci seen wàllu bopp ni professeur waxee yeneen syndicat ak yenn bu dee lii ñuy def ngaañ-ngaañ la nar a indi ci santé bi wala nomination yooyu ñu jël ci directeur de la santé bi ci directeur keneen ak keneen gis nañu ni ñu ngi koy ñaaw mais nañu jóg ñu porter combat bi ñu xeexal ko seen bopp parce que santé man da li tax ñemewu ma wax ni médecin rek moo war a diriger santé mhm. parce que Mamadou jóg l'ancien maire de Dakar il fut les meilleurs parmi les meilleurs ministres s'il n'est pas le bi mu jaaree santé mhm. loolu professeurs yi ñoo ñu ko wax te boobu administrateur la woon bu ñëw foofu mhm. pour man Eva Marie Coll Seck jëlee nañ ko fi mu jóge extérieur mais ñiy def santé gis nañu bu Eva ñëwee fekk na fa ñu ko gën a xarañ ay blocage sax la fa bàyyi donc pour man l'histoire de Mamadou Ndiaye rek laay jël comme exemple parce que moi j'avais lancé Revocap le un mouvement bi bi accompagner le personnel sanitaire j'avais pris cette initiative ci Covid bi accompagner ci prof Seydi mais docteur Mamadou Ndiaye dañ koo fàtte woon te moo yoroon prévention ñu fàtte ko teg ko nee de côté il a fallu la table ci Covid bi docteur Mamadou Ndiaye ñëw te docteur Mamadou Ndiaye woo xam-xam bi mu yor ci communication ak xam-xam bi mu yor ci santé xoolal fa ñu ko yóbbu woon ci ci biti donc loolu pour man waa santé nag ñooy jóg xeex ko te directrice ressources humaines bopp on attend à ce que mu am une politisation forte boo xam ne ni ñi nga xam ne dañ cee nekkoon di leen ca loolu la santé ñooy xeex xeex bi nag seen biir. <laughs> très bien c'est important xëy na dinañ xeex xeex bi ci seen biir mais en attendant euh, ba tey euh, est-ce que euh, mënuñu jàpp nomination bi mu nekk loo xamante ne peut-être dafa dugg ci li jëm ci wàllu politique bi nga xamante ne gouvernement bi yees bi teg na ko jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci secteur santé bi surtout li nga xamante ne moom moo ñeel wàllu prévention bi nga xamante ne ci loolu la ñu basé wu. foo infirmier la de. alors <laughs> oh, xam nga secteur de la santé. contrairement peut-être ak li gars di faral di foog dañuy jàpp ne boo nee santé rek c'est des médecins. Mhm. dans le secteur de la santé il y a et des médecins et des non médecins. Mhm. loolu il faut ñu koy bàyyi xel. et ça a toujours posé un problème dans la gestion même de li nga xamante ni mooy la politique sanitaire parce que souvent day am ay heures entre les praticiens. Hmm. ak ñi nga xamante ni du ñu ay praticiens. et souvent day indi incompréhension mooy waral yu mel ni ñi posé ko te politique aussi dafay évoluer en fonction du temps dañ doon xeexee sida jamono ñoom Ndoye jamono Eva Marie Seck xeexeetuñ ko doon sida tey parce que aujourd'hui le sida c'est une maladie comme toutes les autres maladies ñu ko dund am ko ci ci ndaw dund ba soixante-dix ans ça ne en rien à vie. parce que aujourd'hui médecine foofu la toll en termes d'avancée ci garab yi di jox aujourd'hui on parle des trois quatre-vingt-dix testé quatre-vingt-dix pour cent traité quatre vingt dix pour cent ça veut dire qu'aujourd'hui on peut vivre tranquillement avec le VIH sida du am problème. très bien et c'est parce que quelque part il a eu des avancées. donc ni nga doon xeexee sida. bu njëkk bu njëkk mënatoo ko xeexee léegi sida aujourd'hui. Euh, Saliou mu ngi ko doon mu koy fàttali aujourd'hui le problème véritable problème le goulot d'étranglement de de de ci xeex sida bi le nerf de la guerre c'est l'argent parce que boo xoolee sida et malheureusement dafa law ci programme Sénégal yëpp ci santé nous dépendons énormément de l'aide extérieure mm -hmm. partenaires techniques et financiers ñoom noonu la ñu di sa ça dans le secteur de la santé mm malheureusement saa ñu defee ay jéego ñu gis ne bu pacte partenaires yi retiré woo rek mhm. programme Et maintenant, comment faire aujourd'hui Est-ce qu'on va continuer à soigner ou bien il faut justement mobiliser des ressources additionnelles pour véritablement anticiper ci la nga xamante ne mooy les problèmes parce que boo amee acquis ñu jàppale la nga am ak acquis nga dem ba kooku ci la jàppale retiré wu acquis yooyu normel mais ça veut dire quelque part que ni am na foo xamante yow yaa war a mën a tax